Serigne Cheikh ne ñu ngi nuyu kilifa yi fekk yëpp si turu Serigne Abdoulah ak njaboot di jiital si njóobi suñu imaam tekk ci loxo imaam Libaas Lo mu imaam yëpp ak fu imaam mën a jóge ñuy suñu borom dëkk tekk ci loxo bàyyi dulaan mu mat ci kilifa yëpp fi mat ci yëpp ziyaar leen dana suñ jëmm yi na ngeen ko xamee dañ fi teewal sang bi rek ak i rakkam ak i doomam ñu naanal yàlla nag suñu fi yàgg lool te dina ku sonn la ci mbir mi waaye sonn la ci diine waaye loolu boobu yëpp yàlla na ko borom def fan wu gudda ak sutura ak xeewal nee na yàlla na ko borom defal nee na la ca des nag xam naa ci kàddu yu néew ndax maye bi du yàgg koo xam charte yi xam ne du yàgg. du doon ñaar téeméeri nit la sax mën nañ ko def ci fukki minute waaye li am solo waaye li am solo mooy tabax boo xam ni ay étage boo xam ni ay étage la dañu war a waajal fondement ba dañu war a waajal fondement ba nee na fondement bi bu dëgërulee lu yëngu rek dafa baax mën na daan daw dafa du am sécurité kon nag li ñuy def mooy li war a nee na xam naa ci tënk ndax bisu tey ndax bisu tey xeer la xeer la benn xeer benn xeer ñu jàpp ci ñaari picc ñu jàpp ci ñaari picc ziyaar yàlla gërëm ziar jëmm joo xam ni. ziar jëmm joo xam ni. xayru xalqillaahi dëkk gërëm. xayru xalqillaahi dëkk gërëm. Seydina Isa gërëm ko. Seydina Isa gërëm ko. maam Njoon gërëm ko. maam Njoon gërëm ko. maam Babacar gërëm ko. maam ko. ahlu bayt bi mboole seen gërëm ko. ahlu bayt bi mboole seen gërëm ko. diine lislaam ko. diine lislaam ko. humanité gërëm ko. humanité gërëm ko. rawatina ñun. nga xam ni. rawatina ñun ñi nga xam ni. sunu xol yi moom rek moo ci. sunu xol yi moom rek moo ci. muy Seydi Abdoulaye. amiin. ne kon monsieur bi. di ziar. di ziar. l'islam moo ko digle. l'islam moo ko digle. ku mat a ziar. ku mat a ziar. yàlla na fi yàgg. yàlla na fi yàgg. tam weer. ñaareel ba nag. ñaareel ba nag. ñu dugal ci lii. ñu dugal ci lii. te lii. te lii. dafa am solo. mooy andi dal ak stabilité ci dëkk ci dëkk ci dëkk ak réew kon li ci am solo sanga mi ne kon li am solo imaam da ko ubbee léegi dafa warul ci ci mu kallaf mu kallaf mu kallaf laa wax muy jëf-jëf muy jëf-jëf te jëf-jëf muy wax wax muy wax wax nga xamul atte yàlla nga xamul atte yàlla ca wax ca wax day yomb nee na njuumte dafay yomb te ñun ñëpp ay jullit lañu ñun ñëpp nag ay jullit lañu kon day jaadu kon day jaadu lu waxtaan ak sunu bopp lu jullit sawa xam ñu xam balay lislaam di ñëw ba léegi di ñëw. nan lañ daan sëy. nan lañ daan sëy. di nga mën a xam nag. di nga mën a ak palaasam. ak palaasam. ci àdduna. ci àdduna. imaam. imaam. sëy day. sëy day. balay lislaam di ñëw. ay xeeti sëy ñoo amoon. ay xeeti sëy ñoo amoon. bokk na ca. bokk na ca. nikaaxul istibda. nikaaxul istibda. muy sëy boo xam ni. muy sëy boo xam ni. da ngay yebal sa jabar. da ngay yebal sa jabar. ci jëmm joo xam ni. ci jëmm joo xam ni. melokaanam rafet na. melokaanam rafet na. am na doole. am na doole. nga yebal fa sa jabar. nga yebal fa sa jabar. mu am ak moom doom. mu am ak moom doom. noona ndax mu mel noona ni ngay amee xar ni ngay amee xar bëgg mu am doom ju am qualité bëgg mu am doom ju am qualité yóbbu ko ca xar ya yóbbu ko ca xar ya noonu lañ doon sëy noonu lañ doon sëy bokk na ca sëy ya bokk na ca sëy ya nikaaxul mu mu mu nikaaxul mu mu mu mu daamada nikaaxul mu daamada mooy da ngay jël sa soxna mooy da ngay jël sa soxna gis ku am xaalis gis ko am xaalis nga yóbbu ko fa mu toog fa ñaari weer mu fay ko mu fay ko dellu si waat ci kër te loolee la ko waraloon ñàkk a taxoon ñàkk a taxoon ah. bokk na ci sëy ya dana bokk na ci sëy ya tuddee almuxaadana almuxaadana li mu tuddee almuxaadana mooy mbooloom góor mooy mboolem góor mbooloom góor mbooloom góor ñooy seq benn jigéen doom bu taamee doom mu dajale leen mu dajale leen ku ko neex ku ko neex mu ne ko yaay bàyyi sama doom mu ne ko yaay bàyyi sama doom bokk na ca sëy ya nee na bokk na ca sëy ya muy li ñuy wax sixaar mooy mooy ma may la sama doom ma may la sama doom wala sama jigéen wala sama jigéen nga may ma sa doom nga may ma sa doom wala sa jigéen wala sa jigéen te du am kenn bokk na ca sëy ya nee na bokk na ca sëy ya nikaaxul badal nikaaxul badal weccee ay soxna. mooy weccee ay soxna. ma nekk sama soxna. ma nekk sama soxna. dem ba neexatuma. dem ba neexatuma. yow sa soxna neexatuma. yow sa soxna neexatuma. ñu weccee woon. daal di weccee woon. bokk na ci sëy ya. nee na bokk na ci sëy ya. nikaaxul mutaa. nikaaxul mutaa. mooy sëy boo xam ni. mooy sëy boo xam ni. ci contrat la tegu. ci contrat la tegu. bokk na ci sëy ya. nee na bokk na ci sëy ya. nikaaxul muxti. nikaaxul muxti. mooy. mooy. sa baay génn àdduna sa baay génn àdduna nga jël soxna nga jël soxna yii xeeti sëy sa nga mi nee ne yii xeeti sëy bi mu ëgsee bi mu ëgsee lislaam dafa dàq lépp lislaam dafa dàq lépp indi sëy bii nuy def indi sëy bii ñuy def tey moom la ñu tuddee al bu'ula moom la ñu tuddee al bu'ula moom la imaam bi def moom la imaam bi def kon sëy sëriñ bi nee na bu màgg la jaamu yàlla bu ni asamaan nekk kéemaan ni nekk kéemaan suuf nekk kéemaan suuf nekk kéemaan jant nekk kéemaan jant nekk kéemaan weer nekk kéemaan weer nekk kéemaan guddi nekk kéemaan nekk ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم أن خلق لكم من أنفسكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة ورحمة إن في ذلك إن في ذلك آيات آيات tollu woon. pour nga xam ni kéemaan. pour nga xam ni si kéemaan la. ndax ñoom ñoo ñee. ndax ñoom ñoo ñee. ku ci nekk ba nga wéytee ca salaat. ku ci nekk ba nga wéytee ca salaat. sa lisaanu xaal. sa lisaanu xaal. mu ngi wax ak yow. mu ngi wax ak yow. lan mooy lisaanu xaal. lan mooy lisaanu xaal. mooy da ngay wax ak sa bopp. mooy da ngay wax ak sa bopp. day doon dëgg. day doon dëgg. mu mel ni jëmm joo jàkkaarloo. mu mel ni jëmm joo jàkkaarloo. ngay wax muy tontu. ngay wax muy tontu. te yow kese la. loolee lan la. sang bi lan la. yaa ngi tëdd ci salal. yaa ngi tëdd sa salal. wér fa yow kese. wér fa yow kese. naan. bi nga xam ni. yow soppe bi nga xam ni. gisaguma la. gisaguma la. kañ la ñuy daje. kañ la man xaw ma danga ma sori. man xaw ma danga ma sori. wala danga ma jege. wala danga ma jege. xaw ma da nga xees. xaw ma ñuul. xaw ma ñuul. xaw ci ban nga bokk. xaw ma ñuul wala da nga gàtt xaw ma nga bokk. Hmm. waaye bis bu nu waaye bis bu nu leetar ya tàqalikoo woon. leetar ya tàqalikoo woon. muy alphabet. muy alphabet. dina booloo. dina booloo. moo xam mu dëkk ndar. moo xam ndar la de. ak mu mën a daj. ak fu mu mën a daj. mën ngeen daje ci kalandoo. mën ngeen daje ci kalandoo. wala ci supermarché. wala ci supermarché. ngay dox rek. ngay dox rek. sa mbagg. sa mbagg dal ci mboggam. dal ci mboggam. am lu mu waddale. am lu mu waddale. nga soog na si baal ma. nekkati sëy lay doon. nekkati sëy lay doon. wa min ayaatihi. wa min ayaatihi. keroog ba nga ko gisee rek. keroog ba nga ko gisee rek. leetar yi tàqali ko woon. leetar yi tàqali ko woon. ABCD. ABCD ba set. ba set. ba set. nga gis loo ciy génne. nga gis loo ciy génne. je t'aime. je t'aime. kon su defee. baasu sëy. baasu sëy. lan la. moom la tudd. alxuraan moom la wa jaala baynakum. wa jaala baynakum. mawaddatan wa mooy téye sëy. mbëggeel. dina mbëggeel. ak mooy téye nee na waxtu yi xam na waaye na sa xel dem ci yonent yàlla ayuba ayuba dafa doon dafa amoon dafa amoon ñu doon sëy moo tax mu feebaree moo tax ba mu feebaree ñoom ñëpp dem nañu kan moo fa des kan moo fa des ña amuloon yërmande amuloon yërmande ñëpp seen bëggeel sori na kon sëy bëggeel ak yërmande bëggeel ak yërmande mooy base bi mooy base bi moo ko lal mu ko lal moo ko mu ne ndax jigéen sëñ Cheikh nee na jigéen Seydina Idriss Seydina day bëgg comme yow góor ni ngay bëggee. comme yow góor ni ngay bëggee. day bañ. day bañ ni ngay bañ. ni ngay bañ. day mer. day mer. ni ngay mer. ni ngay mer. day bëgg. day bëgg. ni ngay bëgg. comme ni ngay bëggee. bëri dégg na ko te loolu te loolu ñàkk gaa dégg dina indi jafe-jafe léeg-léeg ndax lislaam ndax lislaam li may jigéen li may jigéen mooy mooy lépp lu lislaam andi lépp loo xam ne andi na ko góor ak jigéen ñoo ci am képp ci lislaam ci lislaam ci wàllu tegteef. ci wàllu tegteef. tedd nga. tedd nga. ku góor loolu lan teg ku jigéen kii. moo tax bu ñu ne. am na ñoo xam ko. Ah, ah kay. góor ak jigéen yemuñu de. waaye ci lan la ñu wute. ci ne dafa am ak jagle. ku ci ne da ngaa am ak jagle. foofu la mu tabane. foofu la mu tabane. ba ñu jigéen. ba ñu jigéen. ni góor ute am na ndax yaramu jigéen. ak yaramu góor. ak benn. ku ci ne dafa am. ku ci ne ay xasaayis. ay xasaayis. wàllu. ci wàllu. wàllu. ci wàllu. waaye yooya nag. su góor gi naka sama borom ji naka sama borom bindee bindee indee naka sama borom bindee naka sama borom bindee ngir lañ ka teg a tax ngir lañ ka teg moo tax ngir mu mën ko doxal ngir mu mën ko doxal jigéen nit jigéen nit naka sama borom naka sama borom bindee lañ ka teg a tax lañ ka mu mën ko doxal ngir mu mën ko doxal mbokk yi mbokk yi góor du ëmb góor du ëmb jigéen mooy ëmb jigéen mooy ëmb am na melokaan yoo ci góor nekkul ci góor am lu ne ci waaye amul nekk su góor. nekkul ci jigéen ñi laysa zakar. laysa zakar kal unsa kal unsa. kon mu mel nii. sax bi ne kon mu mel nii. nuróo ñu de. nuróo ñu de. waaye. waaye. ante. góor ak jigéen. góor ak jigéen. dañuy mottalante dañuy mottalante. xawlatu. xawlatu. bintu saalaba. bintu saalaba. dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko jàmbat di ko jàmbat diggante bi jëkkëram diggante bi moom jëkkëram ñu wax awsu ñu wax awsu bun saabi bun saabi mu ñëw ne ko mu ñëw ni ko sang bi sang bi wutal ma solution waaye wutal ma solution sonn naa sonn naa Nabil nag koy laaj lu xew. mu ne ko dama am jafe-jafe ak sama borom kër. mu ne sama borom kër. ndax kat sama borom kër. ndax kat sama borom kër. dafa tàng. dafa tàng. te loolu am na ci lenn góor ñi. lu yëngu rek. lu yëngu rek. lu yëngu ci ma bëgg na nga wutal ma solution nabi ni ko lan la wax mun nga def ma wax ni mun nga ma wax ni anta anti anti anti alayya alayya ka zahri ka zahri abi abi ummi mun nga bis ni ki tey mun nga bis ni ki tey ni ma jàppee sama ndey ni ma jàppee sama ndey ba du ma seq ak moom ba du ma seq ak moom noonu nga mel ci man zihaar. moom la ñu tuddee zihaar. jamono boobu nag. jamono nag. amoon na de. amoon na de. la tudd. ku rek. ku ni xamal ni sëy ba doxatul déedéet. ndaw si lu ne jéem na ko. ndaw si lu ne jéem na ko. jëkkër ji. jëkkër ji sax sax rek. mu ñëw ci yeneen tamit. ne ko utul ma قد سمع الله قد سمع الله قولا التي تجادلك قولا التي تجادلك في زوجها في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع تحاوركما تحاوركما إن الله إن الله سميع بشير آه، يا الله العظيم والله tàllal yàlla loxo rek. nee na tàllal yàlla loxo ñi xam ko. nee na mu suñu borom rek moo xam ko. mu ne xat samia dégg na de. mu ne xat samia dégg na de. xawla lati. xawla lati. waxu ndaw sa nga xam ne waxu ndaw sa nga xam ne. du jaadilu ka. du jaadilu ka. mu ngi échangente ak yow. mi ngi mi ngi weccante koog yow. mu ngi weccante koog yow. mu ngi weccante koog yow. ca ca jëkkëram. ca jëkkëram. dégg na waxtaan wi. ba andi na solution. solution bi mooy lan. nee na solution bi nag lii yàlla wax mooy lan. alladina yuzahiruna minkum. alladina yuzahiruna minkum. min nisaihim. min nisaihim. maam ummahatuhum. in ummahatuhum. in ummahatuhum. ila allahi. wallatnahum. wa innahum. wa innahum. la yaquluna. min alqawli. wa zura. wa inna allaha la afuwwun gafurun. ñiy def zihaar. nee na ñiy def zihaar. naan araan nga. naan araan. sama ndey araam ni ma ah yooyu wax nee na lu ay wax de jigéen ñi jabar seeni jabar ñun seen yaay seeni soxna na yàlla nag yàlla nag mën Mana baale Ini pour mën a baale la day jéggale day jéggale wala dina yu zaahiru na wala dina yu zaahiru li ma xaalu li ma xaalu nga xam ni génn nañ nga xam ni génn nañ ca lañ waxoon la waxoon dafay am punition nee na min qabli an yatamasa mooy day goral jaam mooy day goral jaam wala muy àndaat ak soxna wala balaa moo àndaat ak soxnaam lu sérieux la وإن لم يستطع ذلك ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فإن لم يجد فإن لم يجد su fekkee ni mënu ko nag fekkee ne amul loolu amul loolu fasiya shahrayni mutataabi'ayni ngay tàttaloo pour mu amaat soxna pour mu amaat soxna ndaw sa ne ko mat la soo ko roteel mat la mat la mat la antanu lii antanu lii mu ne ko fa in lam yastati fa in yastati nag fa in aamu fa in aamu tina miskina tina miskina bu mënul lii bu mënul lii na na na lere na lexal juróom benn fukki miskin juróom benn fukki miskin mu ne ko sama jëkkër mu ne sama jëkkër amul dara amul dara sama dëkk amul tàndar mu ne amul dara amul dara nabi ne nabi ne man dinaa ko jàppale man dinaa ko jàppale te tàndal ma jàpp kon yi yu la yu la xam nga ndaw sa xam nga ndaw sa sama jëkkër sama jëkkër ko ko xale yi sànq. xale yi sànq. ndax mënu leen a yar. ndax mënu leen premier rôle. nee na premier rôle. jigéen. jigéen. ci biir mu yaru. mooy mu yaru. ndax mu mën mu mën a yar. Ah, mu yaru ndax mu mën a yar ndax mu mën a yar ah nabi wax na ko de ah nee na nabi wax na ko mu ne jigéen de mu ne jigéen de des na ko tànn des na ko tànn ci alal ci alal taar taar askan askan diine ma diine waaye jëlal diine waaye jëlal diine bi ñetteel borom diine daal moom la jël jël ko dana la dimbali dina la dimbali yàlla la sa njaboot yàlla la sa njaboot bi ci des nee na bi ci des mu ne ko góor gi. lan nga ciy dégg. lan nga ciy dégg. rolam bi njëkk. rolam bi njëkk. mooy moo war a uti dund. moo war a uti dund. kon ku nu may. kon ku nu may. waroo yaakaaral. waroo yaakaaral. waroo yaakaaral. waroo yaakaaral. demal nga liggéey. demal nga liggéey. parce que lii yow la war. parce que lii yow la war. bu ñu demee ba jamono. bu ñu demee ba jamono. lenn ci ay góor. lenn ci ay góor. ka la ñuy seeyal. ka la ñuy seeyal. ca jigéen ñi. ca jigéen ñi. dañuy seet. dañuy seet. ndax am na. ndax am na wala amul. loolu ak tayal lay jur. loolu ak tayal lay jur. na jigéen bi am ay milliards. nee na jigéen bi naa am ay milliards. waaye yow mii waaye yow mii sëy. yor buum gi yor buum gi. yow la dépassé waaw la dépassé woon dama liggéey uti liggéey. nangu kirtal xale yi. sang bi nee nangu kirtal woon xale yi. ñu liggéey ñu liggéey. jël seen responsabilité yor seen responsabilité. الرجال قوامون على الرجال قوامون على النساء على النساء li ngay dégg ci lépp nag. nee na li ngay dégg ci lépp nag. am libaas. am libaas. mooy jëkkër ak jabar mooy jëkkër ak jabar. dañuy jàppalante. dañuy jàppalante. dafa mel ni. dafa mel ni. ku ci nekk sa responsabilité. ku ci nekk sa responsabilité. ali jàll xawaamu. nee na ali jàll xawaamu. avion bi. avion bi. passager yi. passager yi. pilote bi pilote bi. avion bi. avion bi. passager yi passager kii dawal avion bi. responsabilité bi pilote mooy. mooy mu dawal avion bi mu ba wàcc. ba atterrir wàcc. jigéen dañ koy teral. ku ci nekk rek. ku ci nekk rek. naka jàpp. naka jàpp yow ku góor laay wax. yow ku góor laay wax de. jàpp que ni sa sœur. jàpp que ni sa sœur. fu mu sëy. fu mu sëy jàmm nga fa bëgg. jàmm nga fa bëgg. kon yow ndaw si ñëw sa kër. kon yow mi nga xam ne da ngaa tax nga dugal sa kër. waaye jàppee ko noonu. waaye jàppee ko noonu. suturaal ko suturaal ko. teral ko. Ehm, bu may tëj. nee na bu may tëj nag. ngeen baal. ngeen baal. ñu wax ak sunu bopp. ñu wax ak sunu bopp. mooy kilifa yi. mooy kilifa yi. olof nee na. olof nee na. sëfu mbaam. sëfu mbaam. dañ cee jàpp. dañ cee jàpp. mbaam boo muy dox. bàyyi ko muy dox. léegi la lan ko sëf. léegi lan ko sëf. léegi mu war. léegi mu war. kon kilifa yi. nañ ci topp nañ ci topp bu naree jéng janti ko te noonu la ko waxaan waxee alhamdulilah sang bi ko ne alhamdulilah imaam junj na ko léegi imaam junj ku góor ki ku góor ki yewit sëyal ngir yàlla sëyal ngir taxaw leen njaboot taxaw leen gi ndax ndaw si sëy si ndax ay gorom ay gorom nañ ko jàpp ni seen ay njëkkeen ay njëkkeen nañ ko téye nañ ko téye waaye ñëw waaye ñëw say goro xatal say goro xatal la say njëkk xatal la ndax lan ndax lan loo leen terale loo leen terale te yow amoo ko te yow amoo ko say ba dina xam say ba day xam wallaahi kon nu ñu koy wax di goro yi kon goro yi taxaw leen waaye taxaw leen jàppale ndaw si jàppale ndaw si ndax mu mën a sëy yow ku góor yow ku góor kii kazalika kazalika ndumbe ndumbe ak ndaago ak ndaago xalifa mbay xalifa mbay dafa nekk ak soxnaam dafa nekk ak soxnaam ñu koy wax ndaago ñu koy wax ndaago yaayam tudd ndumbe yaayam daal di ndumbe ñoom ñett rek kër ñoom ñett rek ci kër gi nee ndumbe xalifa ak ndaago xalifa nee xalifa ndaawo ndaawo ndaawo daka takk andi daka takk andi ngir wéttali yaay kër gi ci kër gi naka ñëpp dëgg naka ñëpp dëgg xalifa sonn na lool xalifa sonn na lool su wàccee su wàccee yaayam woo ko yaayam woo ko li ma sa jabar def li ma sa jabar bopp diisal bopp dugg ci néegam xalifa dugg ja fekk ka ja fekk li ma sa yaay def ñu xat lool ñu xat lool ay jamono ay jamono xalifa amul jàmm xalifa amul jàmm ba mu sonni ba mu sonni mu ne ndaago ndaago dimbali ma rek dimbali ma rek ma yóbbu la sa kër baay ma yóbbu la sa kër baay ba kër gi daal ba kër gi daal mu yóbbu ko mu yóbbu ko ba mu fa demee ba mu fa demee yàlla nattu ko yàlla nattu ko yaay ji feebar yaay ji feebar bi yaay ji feebaree bi yaay ji feebaree mu jaaxle mu jaaxle ndax moom day liggéey te amul mu delluwaat mu delluwaat ca ndaa ah, ca ndumbe. mu delluwaat ca ndumbe ca di ko dimbali ma ma. sama yaay sama yaay. dafa di liggéey di liggéey. kaay toppatoo ma ko kaay ma ko. mu ma sa yaay ma sa yaay ma rek. nga ma nga jàppante. jàppante ndax dafa feebar. ndax dafa feebar kay dimbali ma de. kay dimbali ma ndaw si ñëw. ndaw si ñëw. di nga toppatoo. di nga toppatoo. lu gën a pire. lu gën a pire. la mu ko doon def. la mu ko doon def. ndaw sa delluwaat. ndaw sa delluwaat. te dafa feebar. te dafa feebar. ndaa ko dellu. ndaa ko dellu. gis benn xaritam. gis benn xaritam. ku muy dee yoon. ku muy dee yoon. di ka nettali. di ka nettali. li muy daj ci këram. li muy daj ci këram. xarit solution. la solution. yi dañu dañu dama lay jox dama lay jox la. poisson la. kooku yaa defal defar léegi. kooku yaa dégg nga sotti dégg ci lek gi ci lek gi. Euh, bu amé dur rek. bu amé dur rek. sa jëkkër. sa ndaw sa d'accord. sa d'accord. mu defar ba. jox ko jox ko. nga am technique. nga technique. koy nga koy nax di ko raay di ko raay di maslaak moom mu koy naan ndànk ndànk mu koy naan ndànk ndànk rek waaye boo ñëwee waaye boo ñëwee di sol kanam di da jëli de da jëli mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndaw si ndaw si dégg loolu dégg di ndax ndaw si di ndax ndaw di ko di ko sotti muy lekk muy lekk ñu dem a dem a dem ñu dem a ndaagoy wéttu la ndaago mooy wéttu toppatoo rek ndaago da toppatoo rek ñoog loolu ñoog loolu ba benn bis ni mu koy yëkkatee rek ni mu moom ndaago moom ndaago goroba dal di yuuxu dal di yuuxu ay doom. damay toppatoo. damay toppatoo. ba nar a lor. ba nar a lor. mu ni ñokket. mu ni ñokket. léegi mooy toppatoo. léegi mooy toppatoo léegi daal moom Dumbe. atmosphère atmosphère kër gi. atmosphère kër gi. neex lool changé neex lool. léegi ndaago. léegi ndaago. dem na ca xarit ba. dem na ca xarit ba. nekk rëccu am na. nekk rëccu am na. rëccu am na. rëccu am na de. garab gi jox naa ko ko. garab gi jox naa ko ko. daanaka naan na leen. daanaka naan na leen. te soxna si soppeeku na. te soxna si soppeeku na. wax nu may def. wax nu may def. ay waay. ay waay ay bu deewee. ay bu deewee. soxna sa ne ko. soxna sa ne ko. dalal dalal. joxuma loon poisson. joxuma loon poisson. ndox laa la joxoon. ndox laa la joxoon. nii nga def. nii nga def. ba jàmm am. ba jàmm am. boo ko continuer boo ko continuer. jàmm am jàmm am. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. wa rahmatulahi taala wa barakaatu. la ca des nag. la ca des nag. kayit gii ma yor. may ndis la. may ndis la. bu nu maye woon. bu nu maye woon. libaasalaay ak Beera ñoo maye woon seen doom. libaasalaay. libaasalaay. ak njiin ma ak ak ak maam njiin. ak maam njiin. mu bay njiin màgget. mu bay njiin màgget. ñoo maye woon seen doom. ñoo maye woon seen doom. ba nu nekkee lii. ba nu nekkee lii. waaye lii laa wax. waaye lii laa wax. am njàngale. am jàngale la. dafa ci am ñoo xam ne nag. dafa ci ñu ko. comprendre lii. ba may. bu nu ba may. way jur yi. way jur yi. dañ koy sàmm. dañ koy sàmm. ba mu mat. ba mu mat. ñu soog a boole. ñu soog a boole. waaye kenn mayewu leen. waaye kenn mayewu leen. ni ñu mayee sëy ni ñu mayee sëy yi. noonu lañ leen di maye. noonu ñaawee dégg nag man xale bi. man xale bi mën naa am 14 ans. mën naa am 14 ans. loolu rek. loolu rek. nga dajeeg moom ci. nga dajeeg moom ci loolu léegi sama jabar la. léegi sama jabar la daal di ànd ak moom. ànd ak moom déedéet. déedéet. na loolu leer bu baax. loolu leer bu baax. rawatina muy jàng. voilà rawatina muy jàng. mën nañu yàq adduna. mën nañu yàq adduna. ndigal. ndigal nga cay am ba pare. nga cay am ba pare. du soppi wéyal. du soppi wéyal moom la ñu tuddee. moom la ñu tuddee. ijaaza. ijaaza. ñëpp a xam. dëgg ñëpp a xam. kenn du bàyyi lay. kenn du bàyyi lay. kenn du maamu sëriñ Ablaye. kenn du maamu sëriñ Ablaye. dëgg la waay. tënk ko ci lii nga ñaanal ma. tënk ko ci lii ñu ñaanal ma. xamal nga say gone ñuy xaytu yoon yàlla way ma. mu ngi nga too bàyyi islam ndax yaa ma wan yoon. waaw waaw yaa tàmbali suñuy tur ba diwaan yaa màggal xaleel wan ka yoon. waaw may may gune buum. mayub doon ca moom. may basum diine. roy leen daal borom diine. épidémie bi. muy mbas mi. muy mbas mi. mbas piir mi. mbas piir mi. mooy ñuy def lu leen neex. ñuy def lu leen neex. ci lu neexul yàlla. ci lu neexul yàlla. muy mbas mu mag mi. muy mbas mu mag mi. déggoo li bas nag. déggoo li bas nag. dafa naan kuy xamtul islam. tabul lakkal xaril wan naan. waaw waaw. yow doo teel a may gone buum. muy mayum doon jamono. yi muy mbas mu mag Hey, Lendo. dile öyle yar. Uyarı